Thank you. lii sax ay kàddu rek. waaw gannaaw nga xam ne yéen a bokk lépp ni ñu koy waxee rek. waaw ay kàddu yu ñu barakallah maa ngi koy fàttali léegi di ko fàttali ay xalifa sëñ Moustapha xam na ñëw nañ seet si ko dalal ko jàmm ñaanal ko yàlla te dañu ko loolu suñu diggante ak moom fii suñu kër la suñu kër mag la di sëñ Moustapha Bachir waaye di suñu kër maam Serigne Touba ñëw itam ndokkeel ko ci inauguration bi mu fas yéene def tabarakallahu ñu di ko rafetlu di ci rafetlu itam seen te njaboot yi ak seen yàlla mottali yéen yëpp ci ak ci biti dégg nañu ci bu baax a baax a baax ak kër gi barakallah miin nañ ko suñu këru bopp la ñu ngi leen di sant yéen tam ci seen liggéey ak seen taxawaay jazakumullahu xayran